بهذه المقدمة وادخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو عان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو رحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب ما سفي المسب النتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته والصورى summa salaatullahi wassalaamu ala lasi mi niiloo aqlaamu sayidina safiina almuqaddami inda alladi taskuu laday xidami muhammadin wasilati wa junnati عن العادي والأسى وجنتي والي وسبيل الأبرار في العال والمال بتكرار هذا وقصدي خدمة تقر حين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تسر مصفا به كفيت مع سر خدمت من رب البرايا خدمة لمن بجايه كفاني صدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بسر ولا يجر نهوي كيدا hamdan wa shukran la sama burura rabbil wara wa sa saxurura فقمت ناسما لسل مقدمة مسليا بها على من قدمه مرتجيا كوني خديما أصنع وأنا أفوز بالمقر الأصنع ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعل الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يشتفى نظما مباركا يقي العذاب كما الذي كابدني عذابا أرجوسة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في آجل كعاجل للراخب قد انصرفت للمراد قائلا ما سفاي بايتنا وقائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا amartana bi an nusalli ala sayyidina manil bariyata ala muhammadin wa an nusallima ala ya baqiyan abqayta sarmadan wala fa sarmadan salli wa sallim ya karim hanni alay waltaqudu li ma arum salli alay fi jamil ali ma salamin wastajib suali salli alay fi jami'i sahabi ma salamin waltuwaddi allah bi واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقوا ختم لما سيدنا محمد ولا آله والسعد في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الحب الشر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل وساب وسن مخفي يا من من الناس ما انعصمت خير الورى وشأنه هزمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه wasal yaa rahmaanu bi tasliimi ala lasi buxsa daa taxliimi sayidina muhammadin wal aali wa saabi fi l aali wal maali yaa amiran xayral wara bil xasbala kama samtahu bi wal xasbala salli alay wal tusallim kul xin fi laali wa saabi maan wa saalihin wasal yaa rahimu bisalaami ala alladi tasurruhu aqlaami سيدنا محمد والآل وسب يا من جاد بالمآل يا خير منسل وقاب عذبله وخير منسل حباب بسمله سل بتسليم على من فاقا في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل كما بك استهاذ من شيطان ونور القلوب كالأوتان وفيه باركت وفي السحاب وآله ومطر السحاب وانصر علينا بركات البسملة وتغننا عن غزوة بعسبلة وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعذب ماتها والتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بالسلام كما إليه خدت أفضل الكلام والتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي وتكفنا بعينه كل لحين وكل ما لم ترده لي يا محين وتكفنا بوايه كل أود wal tuxnina an jaalibatin li xawad wa takfina bi zali kulla zulli wa an xaraamin axnina bi xilli wal tuxnina billahi han siwaahu ma kulli ma li wajhi nahwaahu wa bi baqiyati lxurufi hablana fadlan bihi yaxbituna man xablana wa hablana bi haqi ba il basmala والسين والميم سرور الكمل وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسيني سعادة في الحال والآتي وخرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا ما سر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونوير مألفي وهب لنا بالله لطفا حاجلا maal bushaaraati wa lutfan aajila xad xudutali bil alifil maxfiyi naylal maqaamaatil hula bi tayyi fasalli sarmadan bi taslimin bila nihayatin ala nabiyin qubila sayidina muhammadin wal ali wassaabi anni wastajib suali bi hurmatil asbalatil maniha salli ala man jaa bi shariha سيدنا محمد وسلم ولا آل وصحبه وكل مسلم واتغنني عن تعوذات يا واحدا في وصفه وساتي وفي فعله وجد بعصمه لي من الدر وكل وسمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة salli wasallim sarmadan yallaahu ala nabiyina wa man walaahu sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi fi lhaali wal maali waliyhab fiika dawaamal baraka bi ayni mushrikin wa gayri mushrika wa tuxnini bi kadaanaati wal takfi gayra busharin jihaati waliya baarik fi jamihi alharakaat والسكنات واجعلنها بركات يا من به استعذت من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا هاليا عن ولد ووالدي أذهب لغير جهتي شيطانا وليرض في وطني أوتانا بحرمة الألف في التعوذ خلد لي حزمة يا محوذي bi hormatil hayni tajawaz abada hamman yaluzu bi haysu abada bi hormatil waawi ilayya wajjiha maarumtu minka karaman muttajiha bi hormatil dhali adilla kulla man يسوءه بشري من أبناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة وليلين باقيا بتركة وليهب الهاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ وثبات وامنا بعقل ميم كل من لهن من قصد نعوي ولتكن لي ولتهن واترد بعق النون كل من مرد لا ما يدرني حيث ورد واسبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولق غيري اللعين أيسرام duran wala tunilhu minni almaram wa bishaqawati rudi shaytana wa bishaqawati rudi shaytana li ghayri ma malaktuhu awtana yasuquhu mu'ayyisan minni alhafiz wa laysa yanhuni bi kaydin aw lafiz bi ta'i wajhi tawafahu ila غير جهاتي يا فيسا بإله بألف الشيطان أذهم مكره ليس به يا من وديهم الذكره بنون هرددا لنحره جميع ما هاس من كيد وكن لي يا سميع بألف الرجيم أسب دررا جاء به لو وساشح شرا بلامي لو الملامة سرفي والتكفني وفادي حرفي برائه رد له ما قصدا في من الضرر عيس رصدا بجيمه شمعا يميلا أبدا لما يسوءني ومن لم يهبدا بيائه يسوقه لغيري الواحد القهر موت الخير بميمه ما انتهاءه ليا خيره وليسوق سوليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا salli wa sallim sarmadan ala nabi sayidi kulli aqrabin wa ajnabi sayidina muhammadin wa bariki ya wahidan fil mulki lam yusharaki wa wajjihi shaytaana wal makaida li xayrina wi la tasuqli kaida wal takfini mafsadatan wa hasada wala tasuqli fasidan aw mufsida wali yakun fil harakati sarmada wassakanati wa ayati ahmada waaye sellaxiina min janabi yaa man loo shukri dha itunabi waltaqini ma saani bil hadbala wali yakun mubashiran bil basmala wali yahab bil baai ahsana baqa أعجوبة لكل ند سبقا وليهب بالباء أحسن بقا أعجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرنا سما يا مغنيا عن كل من تعسما وليهب بالميم ما هو ما صدر minni min allasi yuwaddi lil kadar wali ab ya rabbi ikram al ahad bi alifillahi al karim al multad wali billa mayni hab lutfayni minka jamilayni man sirfayni wali bil hay haybat al jamil ya man lima lam tarda li lastu amil bi alifi rahman li ijaba hab ya badian jada bin najaba wali hab bila mi lisana صدق وخذ لي أبدا إسانا ولي بالراء رضوانا يدوم من غير سخط وعناء يا قديم وليا بالحاء حفظا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليا بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للقلوب وليا بالنون نورا يستع ومنك نفا بردا لا يقطع وليا بألف الرحيم إكرام ذي الهب وذي الترحيم وليا بلسان ذكر ورضا باللام والراي وخذ للخردا وليا بهايه هباء مغن يولي من يسج تباء وليا بيائه يسرا بلا حسرا وكل يسكرا واقبلا وليا بميمه ما والغيوب جميع تين وإلما بالخيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا وجل بأخوتك الكريم يا واهب الحسمة والتكريم حروف النسام خير بركات وسكنات الكرمان والحركات يا ربنا يا سلرادي والسماء سل دواما ما تسليم سماء على الذي قدمته مؤسما سيدنا محمد من أسماء wa alihi wa sahbihi wa wajjihi yaa man lahu fi sarmadin tawajjuhi kulla aduwin li siwa janabi yaa man lahu hamdi zaituna bi wansur alayya albarakati duna dur wa li siwa yakuffa kulla ma yadur yaa saarifan xilli xablu naadima yaa man kafaani binnabi saadima kama jihaadi wa buyuuhi almaadiya جعلتها خير مساء راضية سل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله سلهاء سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وتالقلام ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل الله وجعل كتابتي كالأعمال الصالحات ليقت آمالي وجل لوجهك الكريم خطي barakatan lil witri daataati wajal bi jaayil Mustafa horoofi min asamil buruuri wal maaruufi wajal bihi nazmiya fawqa sawmi wa gayrihi min maaniati lawmi wa xalidi tabshira wa taamina li abadan ma rida amina ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya hibbana salli salaatan bi salaamin sarmada ala alladi sammaytahu muhammada waali wa sabi dawit tuqa yaa gaafira zanbi wa waahiba artiqa salli bi taslimika rabban humida ala alladi sammaytahu bi ahmada وعلى آله وصحبه وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على ما سمن سماه حامد waalihi wa sahbihi lhuduuli yaa kaafi lisraaki wa tabdiili wa salliman alayhi wajha linnidam baaba rida ma ayaadi kalinzam salli wa salliman ya hamidu ala lasi sumato mahmudu waalihi wa sahbihi latbaahi yaa waahibal hubbi ma tibaahi wa salli yaa fardan law tawhidu ala ladi sumato ahidu وآله ما سعى بالمهتدين يا من بي لي وابت خير دين وسلما عليه يا كريم وغد إلي كل ما أروم سل وسلما يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا وايدا قتله توحيدا وآله وسبي السادات يا من له عبادة عاداتي salli wa sallim waahiba samaahi ala muasamin sumahumaahi waali wa saabi lkumaati الصالحين الكرم الحمات وسليا وسلما يا قادر يا من إلى رضائه أبادر على معظم سماه حاشر وعلى الوسائب الذين باشروا على معظم سما أحاشر والآل والصحب الذين باشروا صل على العاقب وهو تاه مع سلامك وزده جاها والي وصحبه الأجلة يا من بي أريتني الأدلة صل على خير الورى ياسينا ما سلامك وزد تحسينا والي وصحبه الأئمة yaa man yuzazihu li gayri gumma wasalliyan wasalliman yaa qaahiru ala muasamin sumaahu taahiru wa alihi wa sahbi rijaali yaa man ama kulli anil awjaali salli wasalliman yaa muqtadiru yaa man ila mardootihi abtadiru ala allazi sumaatu mutahharu wa alihi wa sahbi allazina maharu wasalliyan ma salaamin tayyibi على الذي سميته بطيب والآل وصحب ذوي المناقب يا خير من وجي بالتراقب صل وسلما يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي والآل وصحب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير صل وسلما يا جميل yaa man yafi min kaliyal maamulu ala alladi sumaatu rasulu kama bihi min kaataani suulu wa alihi wa sahbihi waltajhali wan nazma akbar ridan yan jahili salli wa salliman ya waliyu ala alladi sumaatu nabiyu wa alihi wa sahbihi al akyaasi yaa man yunawiru bi qiyaasi salli wa salliman ya san nicma alal musamma bi rasul rahma waali wa sabi laxyaari yaa man hadaaniya bil axyaari salli wa salliman yaa dal karami ala nabiy al mustafa al muhtarami wala ali wala saabi ahli nuuri yaa man amaaniya ani tasniiri wa salliyan wa salliman yaa naafiu yaa man tafi min kër liyal manaafiu yaa man tafi min kaliyal manaafiu ala alladi sammaytahu bi qayyimi walaali wala saabi ali shiyami yaa malikan taabuduhu almajaamiu salli ala nadbin sumaahu jaamiu walaali wala saabi ali almajidi wasalliman yaa muxniyan bil wajidi yaa man hudaahu waridaahu aqtafi salli ala nadbin sumaahu muqtafi wa alihi wa sahbi shumuusi ya baaqi anamaani rumuusi wa salliman alayhi fi ljamihi ya xayra haadin naafiin samihi salli wa sallim ya muni la safi ala alladi sumaatu muqafi wa alihi wa sahbihi almukarramin ya man li wajhihi alkarimi lamin salli wa sallim xayra haadin rahimi ala rasulin minka bilmalahimi ولا لما سيابي الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب سل وسلم يا منيل راحة على نبيك رسول الراحة وآلي وسبي ذوي الهدى يا من ما كلي وقلبي هدى سل وسلم يا أنيس الآمل على الذي سميته بكامل وآلي وسبي وللأمل يسر ومني يتقبل الهمل salli wa salliman ala iklili habibika almuqaddami alxalili wa alihi wa sahbihi alusudi ya asiman min darari alwasudi salli ala nadmin bi tukassiru ajri wa bishri dalika almuddassiru ya man bihi aslahta li ma qad fasad مؤيسا مني حاسدا أسد وسلما علي في الآل الكرام والسابيا من لي يجود بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وسبي المؤثبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كلهن وعندك اجعلني سرور الصالحين سل بتكليم علي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وآله وصحبه المفضلين وابدا ببشر المبجلين سل وسلما يا إلهي xaalal musamma bi sabilillahi wala ali wala saabi ya sal birri waxaala niskur waskuran na sirri salli wa salli man ya ilahi xaalal musamma bi najiyillahi wal ali wala saabi arbabin nawal wa bi bashiran nawm ya xayra wal salli wa salli man ya ilahi xaalal musamma bi kalimillahi wa alihi wa saabi dawil himam yaa man li xayri ya tuwajjihu lamam salli ala xaatimi kulli anbiya wa xaatimi rusuli turran rabbiya wa alihi wa sahbihi wa sallima yaa man yuwajjihu li xayri alama salli wa sallim yaa muqiitan yuhyi ala alladi sammaytahu bi muhyi wa alihi wa sahbi ahli sabqi يا محيا من شئت وهو تبقي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآلي وسبي الأبطال يا ماهي الكسل والمثال صل على ندب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر وآلي وسبي ذوي البروح يا من توكلت عليه في شروح صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وسابه واذكر لديك ذا النظام صل على ندب سماه ناصر يا من به إلي ينهو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وسابي ولتتقبل سنظام سل وسلما يا نسير على الذي سمعته منصور وآله وسابي الأنصار يا حافظ المدن والأمصار سل وسلم يا منيل رحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وسابي المهاجرين ولياب كوني سرور الشاكرين سل على ندب أنا ارتجيبه مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم أكسو الحريص مسلما وآله والصحب ودل بي على سواء اللحب صل صلاة ما تسليم على الذي سمعته محلوم وآله وصحبه وبلغا نظمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وزابي يا من خيورك ترام يا باقيا كونك لي أشاهد salli ala nabiyyin sumahu shahidu wa alihi wa sahbihi al-a'lami bi anfa'i al-ikrami was-salami ya man lahu al-bisatu wat-tamhidu salli ala man ismuhu shahidu wal ali wa sahbi dhawi al-wifaqi وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلم واشرح بخطي صدر من تعلم إليك تبت توبة نصوحا وجل لساني في الردى فسيحا يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير يا من له الجمال والتبشير salli ala man ismuhu bashiru wa alihi wa sahbihi wa sallimi wajal bi jaayi ridaaka xalami yaa man ilayya minka taatil busharu salli ala man ismuhu basaru mubasharu wa alihi wa sahbihi ma salaam wajal kalaami bi xayra kalaam yaa man jarat mi ni lawoo nusuuru sali ala man ismoo nasiiru wa alihi wa sahbihi wa sallima wajal tawali fi surur al ulama yaa maanian bi yahidaaka yunsiru sali ala ma in sumaaw munsiru wa alihi wa sahbihi wa sallima yaa man amaani asifan anuslama يا من فؤادي بي نور صل على بدر سماه نور ولا وسابي وسلم سرمدا يا من يا من يوجه الخير كمدا يا سمن كل من استدراج سل بتكليم على السراج والي وسابي وبشري بسعيه النسام خير البشر يا من يفي منك لي الرباح sali ala man ismu wa bisbaahu wala ali wa sahbi wa sallim wal tajudu liya bi kawni bisra kulli man majudu ya man kitaabu li si tuqaa huda salli ala hadin sumaatuhu huda wala ali wa sahbi wa sallim abada wa basira nabiya man tahabada salli bi taslimika ya qawiyu ala allasi sumaatuhu mahdiyu wa alihi ma siya bil xiyara wa bashiran bil asratal mubassara yaa man bi kulliyati tanuuru sali ala man ismu muniiru wa ali wa sahbi wa sallima wa rabbi taali fi sudur al ulama salli wa sallim yaa mujiba daahi ala alladi sammaytahu bi daahi wa ali ma siya bil kumali waskur haqaydi waskur hamali yaa man bihi lam yanhuni hadu sali ala man ismu madhu wal ali wal ashabi ahli listifa ma salamin bi amanin yustafa Moo wal aali wal asaabi ahlil istifaa maa salaamin bi amaanin yustafaa yaa man yaji'uni bi ilhajibu sali ala man ismu mujibu wa alihi wa sahbihi wa sallima wa kasih bi taali fi sukuka alhulama yaa man bihi lin qoodatil anjaabu sali ala man ismu mujabu wa alihi wa sahbihi ma salaam ومو بتالي في العناء والملام وسليا وسلما يا حي على كريم اسمه وفي والآل والساب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء يا من به لم ينهني حدو سل على من اسمه وفو والآل والساب ذوي الحناية يا من به لم تنهني جنايه wasalliman alayhi waqbal sukuri waltamini an jaalibatil makri yaa man bihi yanxaadu lil mardiyu sali ala man ismu waliyu musalliman alayhi bil alil kiram wasaabi waasim bushari min insiram wasalliyan wasalliman yaa qawi ala alladi sumaatu waqun qawi walaali wasaabi sawi lxitaali yaa asiman kulli min al aqtaali yaa man bihi yanooni attaamiinu sali ala man ismu amiinu wa salli man bil hisbi wajhal kutbi kasfan yuril xuyooba doona hat bi yaa man bi faaraqani taxmiinu sali ala man ismu maamuunu walaali wala saabi wal tusallimi wajal bi fatal xuyoobi xalami salli wa salli man yaa ariimu على الذي سمعته كريم والآل والأصحاب للصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من بي وجهت الكرم سل على من اسمه مكرم وسلم عليه في الجماعة وليدم رضا كما جماعه bilaa aduwin wa bilaa xumooli yaa baaqiyan lii kunta bil maamooli yaa man bihi yan xaadu lii tamkiinu sali alaa man ismoo makiinu wa salliman alay fi laali wa fii adaabi fi laali summa maa yafii yaa man bi lam tanuni lfutuunu sali alaa man ismoo mutiinu yaa man bi lam tanunil futuunu sali ala man ismu matiinu walaali wala saabi bi tasliimi wal barakati xut ila taxliimi yaa kiraman kawnaka li yabiinu sali ala man ismu mubiinu walaali wa saabi siwi siyaana ma salaamin wakfini qiyaana yaa raafian ladayka yaskul amalu salli ala man ismu muammalu wala ali wa sabi sawi tawarrui ma salaamin waltu xalit amrui yaa man ilayhi lhaaju wal wusulu salli ala man ismu wasulu wa ali wa sabi wa sallima wa bi tawali fijl wanna sulama yaa man bihi hawlun lana wa quwa salli ala man ismu du quwa وسلما في الآل والساب معا وفي توالي في المقامات معا يا باقيا ليتقود رحمة سل بتسليم على ذي حرمة والآل والساب ذوي العطاء وكالكلي نوير بلا ختاء يا خير منسل أرى إسكانه سلام على المختار سلمكانه والآل والساب والتسلما كما بباسي جلوت السلما يا خير راسق وخير من يتاه صل على سلسس الفالمتاه وآله وسبي وسلما وبي أنر قلب الذي تهلما يا من يحس كل مؤمن يطيع سل بتكليم على هاد مطيع وآله وسبي الإخوان وسق لغيره كل سي هدوان صل على خدم صدق رحمه busra wasalim ya mudi man nihma wal ali wala saabi wacal muksi afdala tawfiqin wa xayra aksi salli ala xawsin wa xaysin wa xiyaas wasalliman ya man ma belabtiyaas wala ali wa saabi zawil manaafi'i وليكن يا خير موت نافه صل على هدية الإله والهروة الوسخى سرات الله wa nihmatillaahi wa sallim sarmadaa wa laali wa saabi wa saayi yahmadaa waqi jamii'al muslimiina yaa fiid wa minni yaqbal fikrati ma lafiis awsil salaamayka li abdikal muqiim muhammadin wa huwa siraatul mustaqiim wa laali wa saabi wa xalit asma kulliyati yaa man kafaani sadma salli wa salliman yaa ilaahi ala alladi sammayta dikrallahi walaali wa sabi dawi lmashaakiri yaa man kafaani makra kulli maakiri salli wa salliman yaa ilaahi ala alladi sammayta sayfallahi walaali wa sabi wa kulli saalimi يا من كفاني بك كل ظالم سل وسلم يا إلهي هل الذي سميت حسب الله ولا لوسب ذوي الرضوان يا مغني عن عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير ثاقب والي وسبي مع سلام وللجنان ليبخر الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وسليا على الذي حاس اتباع المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل السحابة وبيبشر كل عام وسنة من بيريد من تعالى حمسنة وبكتابتي يا ربي ربي kulla mutaaliin li wajhi rabbi wa bi kalaami wa bil ishaara iidi muriidan yatlubul inaara yaa man yaquudu li ma axtaaru salli alaa man ismuhul muxtaaru wa salli man fi'li wa saabi waxati yajal min muniiri lahbihi yaa man bi yajiuni saniyu salli alaa nuurin huwal ummi walaali wasaabi zawil xuhoodi ma salaamin waltu dem juhoodi yaa man bihi tanqaadu lil ujuuru sali ala man ismu ajiiru ma salaamika bi alihi maha saabi yaa man duha i samia yaa man lahu tasbiihu wal kubbaaru sali ala man ismu jabbaaru ma salaamin bi jamiil aali wasaabi fil xaali wa fil maali salaatu dil arsil asimil akrami halay bil xaasimi di takarrumi waali wa saabi ma salaam kama bi ma dalal wa salaam salaatu man wa bali tafhima halay bi sayidi ibrahima ma salaami bi alihil kiram wa saabi kama bi niltul maram salaatu man yajuudu li bi tayyibi hala bi faxril kiraami tayyibi ma salaami bi ahlil kiram wasa bi kama tala bilan siram salaatu baaxin kaana li bi taahiri hala bi nooril baraaya taahiri waali wasa bi bilantiha ma salaamin jaalibin ma ashtaha azka salaamay sil baraayal anfahi hala nabi silulal mustafahi waali wasa bi kama maha bi asaaya sul jamaali fammaha salli wa salliman ya rafiihu ala alladi sumaatu shafiihu walaali wala saabi wajal kulli ibaadatan laka bi gayri kalli wa salliyan wa salliman ya muuminu ala alladi sumaatu muhayminu waali wa saabi lahyaani yaa man amaani ana salhyaani salli ala saalihi wa huwa almuslihu asaadiqu sidqu salaatan tuslihu salli ala saalihi wa huwa al muslihu asaadiqu sidqu salaatan tuslihu